te loolu yëpp si ndigalu en tout cas gouverneur de région joxe na ay ndigal ndax ñu tijji bloc opératoire yi tey am nañu ndam motul ñaari semaine euh, tijji nañu euh, bloc opératoire bu yi tey mun nañu wax ndam bu ñu am mooy fépp foo xam ne foo nekk si région de Tambacounda boo defee waxtu nga jot bloc opératoire loolu nekk na déjà euh, liggéey bu am mucc ayib pour wane ne fii si région Tambacounda Euh, accessibilité bi yokk nañ ko wàññi nañu donc inaccessibilité bi loolu nekk na loo xam ne tey loolu la ñu feete fii si région Tambacounda. noonu dafa fekk fii tamit euh, état bi defoon na fii ay liggéey yu am solo euh, indi na lu mot lu toll ak si at yi rek passé pratiquement ñaar fukk ambulance médicalisée boole na si ay oto pour médecins yi boole na si tamit ay vélo pour DSDOM yi nee naa léegi lim bi toll na 893 velo loolu yëpp mu fekk fi tamit ay ressources humaines tamit indi na ay sages femme lim bu bu mot indi na tamit ay infirmiers bu mot ay médecins aujourd'hui fii si Tambacounda rek bu ma jotee lim boobu rek 60 infirmiers euh, médecins fii si région Tambacounda loolu nekk na ndam te tey mu nekk bés bu rëy pour région Tambacounda ñu jot tey 70 motos 70 motos yooyu dana jàppale suñu infirmier chef poste yi ndax ñu mëna dem gis ñoñu ño xamni ñu nekk au delà de 5 km ba 15 km lolu nekk na ndam bu reuy donc euh, état du Sénégal tay def na ndam pour sen infirmier chef poste may na len ay jumtuwaay mu len ndax ñu mëna def liggéey bu muccu ay pour intérêt population yi